ginnaaw bu ma sant gouvernement bi ci taxawaay yooyu sant armée bi gendarmerie ak police sant maire itam ak seen taxawaay ak président conseil départemental maa ngi santaat suñu mbokk santé ñu nga xam ne ñoo yor xeet bi jamono ji ñu nekk di wax réew mi itam ne bu euh, ñu ndax naam am na ñuy wér di génn waaye gis ngeen ne ñu ngi amaat toujours ay cas maanaam wàllaate bi mu ngi fi ba léegi moo tax dañu war di déglu ndigal yi nga xam ne waa kër docteur moom la ñu joxe te ñu moytu ndiku euh, li ñuy wax kaa communautaire cas communautaire cas communautaire nag li koy indi mooy dox boo xam ne yow sa bopp fa nga jëm xamoon la fa xew xamoon ña ngay nekkal nan la ñu fagaro ci feebar bi ba tax mën nga ko fa jëlee wàllu ko say njaboot wàllu ko say dëggandoo wàllu ko képp ku la jege te tant que loolu mu ngi fi nekk ça veut dire xeex bi day continuer kon conditions yi dina gën a jafe liggéey gën a jafe lépp gën a jafe kon nag bu ñu mënee muñ te maa ngi wax plage yi nañu ko arrêté parce que nañu di bàyyi plage yi di dox wax naa ko ministre de l'intérieur ak lépp loo xam ne bërëb bu ay dajale su ko defee yàlla mën na def ci ak suñu farlu ci diir bu yem danañ mën a génn ci feebar bi waaye fii ak ñu ngi continuer di bàyyandeku ni ngi waxe waxee euh, mbir mi day nek fi di law rek te bu yagge dinañ obligé kon li ñu bëgguloon def ñu def ko moy arrêter complètement circulation ndax feebar am na fu muy tollu bu ko yeggee dinañ ko def amul dinañ ko def complètement kon nak bala ñu yegg ci lolu ñu fagaru bañ fa yegg si ndax bu ñu góorgóorloo rek mën nañu bañ a yegg ci état bi kon loolu laa bëggoon wax di sant waa réew mi yëpp di kilifa diine ci seen ñaan. ndax ay way ngëm lañu kon danañu fagaru ñu def li ñu war a def waaye it danañu sàkku ñaan ñeel réew mi yëpp maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp journaliste yi nag maa ngi leen di tooñ ne leen war nañu wutal ay ay masque ndax war ngeen ko yéen itam di jëfandikoo ci fépp foo leen di liggéey parce que doomu jàngoro bi niñ ko waxee kenn mënu ko gis bët du ko gis te doo ko sentir maanaam doo xam fi mu lay gaañee moo tax waruñu di fooye takk masque yi te daal lu ndaje bu mën a ñàkk moom nañ ko aj ba ci kanam suñ fi jógee yàlla lépp dina euh, teguwaat ci yoon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp.